ba àllu kàncees mhm. mu daje benn góor kilifa gu am xam-xam ku ñuy woowee maam jal caw mhm. maam jal caw ni ko boo yeggee Ndakaar soo guddee nanga wax guddi jóob laa tudd xanaa xam moo war a ñu leen taggee guddi jóob téemur jóob du noonu la bi mu yeggee mu jox koy tegtal ni ko boo yàggee ci ñoom dinañ la may soxla jox ko tegtal yu baax ci soxna si ni mu ñëw Ndakaaru dal kër maam ma poot meng bi mu yegg see kër ma maam ma poñ mbeng di jàngale arxuraan bi muy jàngale arxuraan ñu may ko maam ngóone mbeng maam ngóone mbeng boomu mu taawloo ca góor mooy suñu maam jal jóob ñu tuddee ko jali ngóone mbeng moo moom moo njëkk nekk grand sëriñu Dakaaru ay côté 1814 may laaj ndax loolu moo indi turu Dakaaru jal jóob wala lan moo ko indi balaa ngay tontu papa ah yow sa leçon histoire mokk na. ñu kon bàyyi mu jàll. nee naa nee naa bu war a naan wax. des cœurs pour Bella s'il vous plaît. des cœurs pour Bella fii ku mer bokkoon des cœurs pour Bella. mokk na de ah mokk na ruum na yow kii yow ah, kii na soo bëgg damaa waaru sax yow kay mën nañu la def socialiste. ah mais sérieux wu leen quoi kat. non ah, macha non mais c'est très bien ah, c'est très bien. elle a raison en fait ni nga capté tur yi. waaw man maa ma capté maa ma capté di ko teg benn benn benn. kay kay man li maam yooyu la daan def kay jox ma sama ma rayéla tey ñëwal ñëwal ñëwal. rayéla naa la tey papa macha ndax euh, ma tàmbalee ci turu sowu jant bi. sow sow sow. le couchant. kooku du tur bi directement. Mhm. mais dëkk bi ni mu bindoo. Mhm. moo tax mu nekk sow. toujours ba àdduna yi di tukki. mooy l'est fii sowu jant lay nekk parce que fi la jant bi di suuxee. Mhm. Euh, turu dëkkaraw bi. am na tur yu ko jiitu woon yu soose yi doon oowee fii. mais werante daf ci bëri. mais dëkkaraw bi mu ngi ñëw bi le ñëwee. dëkkaraw boobu bu tubaab bi ñëwee mënul prononcer dëkkaraw bi ndax séeréer yi ñoo doon wax dakaaraw. Ah, dakaaraw. tubaab bi dakaaraw boobu nag ci la tubaab bi capté. tubaab bi moo ñu ne déet. dëkk raw mënuñu. dëkk raw ko mënee ñëwee ñu ko noonu tubaab bi. c'est pas pareil nee mu ñëw te mu intéressant mooy ñëw Massamba Koki Diop. Mm-hmm. maamu ñoom Ablaye Diop bi jur njóobeen yi falu mm-hmm. moom ni nga ko waxee effectivement noonu la amee. dafa gàddaayee. Kajoor foofu ndax barget barget la woon le roi de Guet. Mm-hmm. mu xëccoo fa nguur ñu gañe ko de façon injuste. Mm-hmm. mu mer comme ku mer am jamono jooju ndakaaru ngay ñëw parce que moo doon le refuge. Mm-hmm. mu gàddu ay kaakeem ñëw. bi mu ñëwee effectivement ba àllub kaañ daje na faax kaañ jal ba mu dajee kaañ kaañ seetal ko. rëdd suuf si baaraamam def la muy def ne ko sa voyage bii dina barkeel. kañ nit la woon. nit la woon àllum kañ moo tax ñu ne àllum kañ fa la dëkkoon moom di fa kare. fa la kañ woon fa la kañ ne woon turam dëggantaan moo doon jal siis. jal séeréer la woon. mais dafa amoon ay troupe ya nga xamante ne ku ñëwoon te am intention bu bon daf lay duma dàq la nga dem. ku am intention bu baax mu defar la waajal la ñaanal la yebal la ba Massamba Kokki ñëwee ba foofu. dafa dox ñaga sàmm yàlla na ko yàlla yërëm daf ko fekk mu woon gën a ginnaaw toog nit ku amoon kàttan la ba soo ko séenee mu toog da ngay yéemu ci ni ko yàlla bindee mm-hmm. dafa agsi ba si kaañ te kaañ yëgu ko uh-huh. kaañ ne ko c'est la première fois nit dox ba agsi si man te yëguma ko mm-hmm. ñu waxtaan kaañ natt ko ci xam-xam xam ne kii boroom xam-xam la uh-huh. mu rëdd seetal ko ne ko fi ngay dem dina baax uh-huh. dinañ la may soxna soxna si nag dafa am laago ki ñu lay mel nu mu mënti Ah, moo doon tegtal yi. moo doon tegtal yi. ah mhm. d'accord. mu ne ko di ngeen jur doom ba nga xamante ni kilifa lay doon. Mhm. jal yebal ko wakaam ci mbokkam ba fa newoon Magori Buuba mu dem wakaam Magori Buuba héberger ko ñetti fan. Mhm. ñu xoolante ci xam-xam kii xam-xamu bu weex la indi muy xam-xamu islam. kële yor xam-xam bu ñuul. ñu nattante ba ku nekk fonk sa morom. xam ne ki nga jàkkaar loolu mbër la. Magori ne ko demal cëddeen parce que jamono jooju ñii les musulmans ñoo dëkkoon cëddeem ñoo njëkk a dugg ci diine gi képp ku ñëw di sëriñ rek dañu naan demal cëddeem moo tax Cheikh na Cheikh Saad Bou cëddeem la ñëw sëriñ Touba bi mu ñëw cëddeem lañ ko dalalee mu ñëw cëddeem ak si fa guddi ni mu ko waxee dëgg la éclaireur yi dogaale ko ne ko kii kan la mu ne mën a guddi lan guddi joor guddi ak téemuur am na ñu ne téemuur xajam la woon ñenn ñu ne déedéet téemuur du woon xaj ndax si jamono jooju sa rakk bi juddu après toi te sa siew rëkk da nga sama xaj. maanaam sa tofo daal. sa tofo mm-hmm. ah, werante la. Mm-hmm. mais man ñi ne xaj la ñi ne tofo la fekkee wuñu. ah loolu indi téeméer bi. nañ bàyyi waaw moo indi téeméer bi. Ah. bi mu ñëwee ñu dalal ko fu diir euh, tàggule moo doon borom pénc ba ba mu ko dalalee diir ñu def ko sëriñu daara muy jàngale. ñu may ko ngóone may nga ngóone may nga dafa amoon xëng dafa elle était mm-hmm, bi ñu ñëwee may ko ngóone mu xool ngóone ngóone xuuge mu fàttali la ko kaañ waxoon mm-hmm. ñu la mënti may jëlal oh. dina jur kilifa ak nu mu mënti mel mm-hmm. mu sëy ak ngóone mu jur Jal Diop moo xeex indépendance Ndakaaru ah. parce que li ko sëriñ euh, Ndakaaru waxee léegi euh, ba Cap Manuel lépp Kajoor la woon ah kajoor la woon. fépp ci kajoor la woon. Mm-hmm. ah. tey macha allah kon nag euh, je pense que gis ngeen tey sax ni. Mhm. ñu ngi mel ni ku nekk classe et très important mhm. kon partagé leen ko ah partagé leen ko euh, Facebook. Euh, waa digital tamit seen liggéey am na solo ngeen partagé ko dagg ko dugal ko léegi nii. Mhm. ñëpp mën see jot parce que quand même tey émission bi dafa ala dawme parce que dañoo bëgg xam quand même lan mooy ndakaaru ak ndakaaru fu mu sokkee koo ndax kat nit bu nekkee danga nekk ci dëkk dafa dafa dafa dafa gën nag nga xam vraiment dëkk bi nga nekk daanaka lan mooy histoire am kon nañ Euh, quand même euh, li nga xamante ne euh, mooy mooy mooy gore Gorée Gorée Gorée avant Dakar voilà gore nag nekk benn patrimoine du mondial sax laay wax parce que li fi jot a xew la jot a xew dafa bari te ba tey nit ñaa ngi fay dem nit ñaa ngi fay euh, maanaam euh, ak Mouhamed si ñu koy jaajëfal bu baax a baax benn xale bu am solo boo xamante ni euh, papa xale bu xale bu macha allah dañ koy ñaanal jàmm. ñaanal ko gudd fan. di remercier tamit way juram yi nga xamante ni ils nous ont permis aujourd'hui ñu mën a def élément bi. duma la wax dara damay bàyyi nga seetaan te ku seetaan di nga xam ni tey liggéey bu am solo la 2STV dem on regarde. Bonsoir à l'équipe de Vous et Nous. Mon nom est Mohamed et j'habite à Gorée, j'ai 13 ans. Je suis dans l'école Abbé Pierre Soc et je voudrais vous relater l'histoire de Gorée. Gorée, un navigateur portugais du nom de Denis Diaz qui l'a découvert en 1444. Et après les Portugais, les Hollandais, après les Hollandais, les Français, après les Français, les Anglais, après les Anglais, les de l'île de 900 mètres de long sur de large. 27 hectares, 1800 habitants qui vivent en permanence et en parfaite harmonie. 1000 musulmans, 800 les Européens, ils venaient ici, ils faisaient l'échange. Ils amenaient des miroirs, des fusils, des des esclaves. C'était le commerce triangulaire, Afrique, Amérique, Europe. Et à Gorée, chaque couleur a une Le rouge, c'est pour les Et avant toutes les maisons à bordure de mer, des maisons des esclaves. À Gorée, il y avait 28 maisons des esclaves. On a gardé la dernière pour que les gens puissent visiter. Et une famille arrivée à Gorée, la séparation était totale. Le père aux États-Unis, la mère en Haïti et le fils au Cuba. Le père, on le pesait. S'il pesait 60 kilos, il était embarqué. Le fils sur, ses dentitions et la mère sur ses seins. Et il passait par la porte, allait sans retour. les S'ils étaient malades ou blessés en cours de route, on les jetait dans l'eau et les requins venaient les manger. s'ils pesaient moins de 62 kilos, ils étaient engraissés dans la salle, dans la salle des récalcitrants, des inaps temporaires. on leur donnait du haricot, du niébé mélangé avec l'huile de palme pour qu'ils pesent kilos. Et avant, les blancs, ils vivaient en haut et les esclaves en bas. Des fois, ils descendaient et ils violaient les femmes. Quand ils avaient une le musée de la femme et Et les blancs, eux, ils ne pouvaient pas attendre 9 à 8 mois pour avoir le bébé. Comment ils faisaient Ils creusaient un trou, ils mettaient, son, ventre et ils frappaient 29 de fouet sur le dos à la dame. Et en criant, elle va accoucher au même moment. Euh, c'était tout, Ndaïndar, Katichimer, Omoro, Marendiziar et tout. Et si vous, revenez, si vous venez à Gorée, vous demander Mohamed pour faire visiter. Euh, merci vraiment euh, Mohamed. J'espère que vraiment on aura l'occasion quand même, le plaisir je dirais, euh, de, te, de te recevoir ici dans Vous et Nous. Parce que comme li ñuy wax rek xale bu loxoom setee. Euh, Bella Olof Ndiaye lan la wax nga ne xale bu loxoom setee mën na mën a bokk ak man. Mhm. tey tey quand même Olof Ndiaye ay waxam saa yoo koy xool d'année en année. day day mel ni. maanaam li muy wax manaam dafa ancré wu suñu suñu suñu dëgg ak suñu histoire moo tax man la sànq suñu maam yi lañ leen delloo njukkal te jéem a gës suñu bopp loolu laa bëggoon wax ndax xale bi bu guddee te daanuwul rek ba jiitoo jub nga ne ko <laughs> non Bella bàyyi léegi kii day weer quoi de am xam ne dañuy seetaan maa xam nga man maa lay dégg bu baax mais ñiy seetaan il faut boo dammee benn damm nga baaralaat ko day tax waxtaan gi neex baaraatal baaralaat <laughs> daf may daal di quoi amul ma ko bu nga dina dégg fi may waxee parce que sànq bi ñuy commencé nee naa la tegale bu gudd bu guddee te daanuwul ba jiitoo jub ndax jàppal boo tegalee ay bool lu mu gudd gudd bu daanul ba jiitoo jub mm. kon donc suñu maam yi amee nañ leen njukkal ndax démb tax ñu naan tey te ku fàtte démb baaxoo te ku fàtte sa démb mënoo xam sa tey te mënoo xamal kenn sa tey doo xam ko jëm parce que am na ñoo xam ne direct da leen di yëngal. Mm. Mm. yow tey émission bi yaa ko moom. <laughs> tey émission bi émission bi la émission moom moom <laughs> Eva tey on a vu euh, Mouhamed ci ki kii bu nekk mm. benn jeune boo xam ne tey su ma ko xoolee sama xel dafa def ci euh, ndeysaan euh, tonton Joseph. yàlla na ko yàlla yërëm nekkoon Gorée nous on a eu quand même la chance à l'époque dem Gorée gis ko avec beaucoup de prestance il il parlait avec aisance. Mm-hmm. xam nga nekk un un un un un. Euh, défenseur quand même de de de Gorée et aussi de la culture kon yàlla na ko yàlla yërëm fi mu tëdd. amiin amiin ndax ma ce jeune garçon si je le vois je suis fière. Mhm. je suis fière d'être maman d'abord fière en plus d'être sénégalaise ndax xaleel la il a que 13 ans macha allah. mën naa ne sama moromu doom la tey mu taxaw di wax tu vois il parle de de de français yoo xamante ni c'est tellement clair et limpide boo koy déglu da ngay xam ne kii li muy wax daf ko maîtriser. Mm. donc c'est bien c'est beau juste pour conseiller un peu yenn xale yi mën a jël exemple ci moom def ko mais surtout pour les enfants parce que xam on a dit que les enfants seront l'avenir de demain mm. kon soxla nañ leen mm. mais juste pour revenir ci histoire Gorée parce que professeur dañu gis Gorée Saint-Louis Rufisque Dakar faisaient partie des quatre communes mm. à l'époque des mm-hmm. colons mm-hmm. te Gorée moo leen jiitu ñoom ñëpp daanaka d'après l'histoire li ma mm-hmm. comprendre ba bi Gorée xatee sax ci la tubaab bi jógee Gorée ñëw ak si ñëw installé wu fii à Dakar voilà du noonu la demee ok léegi ma li ma bëggoon comprendre mooy en fait ban instant exactement la ñu délocaliser li nga xamante ni moom mooy la capitale de Saint-Louis indi ko fii à Dakar d'accord très mais si question bi laay mujjee. Uh-huh. félicité xale bi encouragé ko. Mouhamed uh-huh. félicité ay waajuram. Uh-huh. parce que ñoo ko encadré ba mu mel nii. ba tax waajur yi am nañu solo. bu baax éducation de base merci. Euh, Gorée euh, Birane Meng lamanu beeñ boobu fukki pencax ñaar amagul. léegi yaa nga woon beeñ ak Ngor ak Wakaam ak Yoof. ba tubaab yi ñëwee en mille vers les mille six cent dix ci la leen sede Corée. Hollandais yi la ko njëkk a jox. Hollandais yi jël ko après anglais yi ñëw après tubaab yi ñëw Hollandais yi ñëwaat ñu koy. paasante mhm. ba mu mujjee ci loxo tubaab yi. ñu commencé fa mu nekk benn bunt bu ñuy defee traite négrière ni ko xale bi waxee nii. Mhm. mais dama leen di nettali benn histoire bu am solo bu amee Gorée. pour ngeen gën a mën a dégla la li xale bi wax. Mhm. dafa am kilifa bu ñu doon tuddee Madoum Niang. xam nga nee nañ la ñangeen yaa nga caaroy géej mhm. looloo leen fi indi mhm. jigéen bu ñuy wax af ab sa njomba ànd ak ay dagam tàkkusaan mhm. ànd ak ay dagam eh, c'est courtisane ah d'accord hmm? di doxantu ci àll bi di ko jigéen ñi doon defee les les lingeer de l'époque effectivement li dal Kunta Kinte ci film ba dal ko les chasseurs d'esclaves dajeex moom ci àll ba ñu jàpp ko moom avec tout ça ñu ko ñu ko doon ànd moom yóbbu ko ñu ñëw ne madun jàppkatu jaam yi jàpp nañu si ab sa njomba mu war ay gawaram toppaleen jamono jooju tubaab bi su ñuy dem Gorée fële la ñuy jaar tubaab jalaaw moo tax mu tudd tubaab jalaaw tubaab yee ca jalaaw mu toppaleen ba tubaab jalaaw ñëw ñu ne ko caravane ba yore ab sa jàll nañu dem nañu Gorée mu ñëw ndakaaru fekk fi sëriñ ndakaaru jali bëkk pay jali bëkk jóg jali bëkk jali bëkk pay euh, maam la ci ab Abdoulaye Diop Makhtar mu àndax jali bëkk ñu dem Gorée fekki gouverneur mu ne ko kii de sama naatangoo la dañu jàpp jigéenam mais bi ñu ñëwee fekk nañu ndaw si romb na la porte du non retour bu ñu yóbbu ma ne rus naa du dellu Kajoor te du ma yóbbaale sama jigéen mu sañc caaro yi jàkkaarloog géej bi ak ay rangooñam. ok. pour dire que la traite négrière était une catastrophe. une grande tragédie humaine. Mm-hmm. lépp lu la Joseph nettali wala xale bi nettali ko xalaatal ne la fa xew. raw na loolu. Ah. moo tax la xew góore euh, yàlla bu mu amati. tey bakkan ya faroot. Mm-hmm. yàlla yàlla sàmmaleen pour ñëw ci sa question. nga ne. Saint-Louis moo nekkoon nekk capital de la l'AOF mhm. Afrique occidentale française mhm. mu dem ba nekk capital du Sénégal mhm. ñu jël ko transféré ko à Dakar lan moo waral transfert boobu ak lan lu ko junju en fait waaw am na fa werante parce que Mamadou Dia dans ses mémoires nettali na ko ñu bëri ñu ko mere woon loolu taxoon ñu mere ko ba ñu demee ba Sénégal war a am indépendance am puisque Ndakaaru tubaab yi mu colonisé wuñ ko wax arme dañu waxtaan ak lébu yi. ñu xajal leen. Mm-hmm. ñu toog consensus. consensus. Mm-hmm. donc du woon daanaka une colonie. Mm-hmm. te tubaab bi dafa doon traité ak Ndakaaru. di traité avec le reste du Sénégal à part. maanaam maanaam papa da nga bëgg a wax ni euh, euh, tubaab bi mosuñu noot lébu yi. waaw dañoo nekkoon ci digg ndox ba di demander sax permission di ñëw di jënd di leen di di naxal di leen fay lempo ba peste bi dëgg la di fay lempo. gore important gore euh, xeer la. lépp lu tubaab bi di jëfandikoo gore ba ci ndox ba ñuy naan fii ci aan lañ koy rootee si mhm. suñu ñëwee di root ndox mi dañuy fay lébu yi mhm. suñu jëlee ay ay ay ay ay ay xar mhm. ay nag ay mbir ci biir Sénégal traversé Cap-Vert pour yóbbu ko gore dañuy fay lempo dañuy fay lempo Serigne Dakar dafa amoon ay nitam yu taxaw di jël lempo pour di ko donc c'était un état ci traité d'égal à égal avec l'État français. Mm. ba traité 1857 bi ci la affaire bi xaw wàññeeku. donc bi indépendance jotee de ne oui walla noo ku bëgg ñu jox la magu Ndakaaru yi dañu jug daan ñoom su Sénégal waxee ne dafay séparé wu ak France ñoom dañuy des ak France. Mm-hmm. Mm-hmm. Hmm? di ko dox ba bind leetar. lettre bi existé na ko dem ci archive yi gis ah, ko ne ko pour que le Cap Vert nekk un départ continuer nekk un département francais mhm. parce que nekk na ko ba pare mhm. parce que coloniser wuñ ko dañu négocier ak tubaab bi tubaab bi reconnaître dignitaire lébu yi di leen jox considérer leen comme ay administrateur bi leen fay xaalis lébu yi di fayeeku l'impôt ñuy négocier noonu di liggéey ba Mamadou Dia yëgee loolu mu xam ne le Sénégal risque de devenir indépendant sans Dakar te grand sëriñ Ablaye Makhtar da koy waral faral di wax. sans Dakar. le Sénégal ne serait plus tout à fait le Sénégal. tout à fait Mamadou pour couper affaire bi à la racine bon ce qu'il appelait un complot contre le Sénégal. mu jëlee mu ne benn solution rek laa mën a def. moo jëlee capitale bi Ndar indi ko Dakar. Mmh. mais Ndar yi bañ aussi à juste titre. Mmh. mu expliquer leen ñu ne national. suñu yóbbuwul capital bi ndakaaru Sénégal dina am indépendance am Cap Vert continuer nekk bokk nekk un département français d'outre-mer loolu la ma ngi doon mais professeur doguma la mais d'après l'histoire Cap Vert ñoom Cap Verdiens ils n'ont jamais été colonisés par les Français les populations du Cap Vert euh, il faut nuancer colonisation bi demeewul comme ni mu demee avec le reste du Sénégal comme Kayoor nga xam ne dañu xeexaax damel bi mhm. ba daan ko nangu dëkk bi ci loxoom mhm, ne suuf si moo tax bi tubaab yi ñëwee Cap Vert fii. Ndakaaru di traité ak lébu yi le les questions foncières boobu la commencé woon. d'accord tubaab yi pour ñu amuñoon fu ñu suul seen niiw. effectivement dañu def traité ax waa Ndakaaru ñu ñu séddee leen. le cimetière de Bel par mmh. un traité qui existe mu ngi dans les archives. Mhm. jox mmh. leen autorisation pour ñu mën fi suul seen niiw. macha allah ma bëggoon na waaw waaw. pour dire que cette mhm. histoire là. Mhm. de la presqu'île du Cap-Vert. daf mais tubaab bi aussi lu tax mu doxalee noonu ku ne xam nga ko. noonu la doxalee ak Cap-Vert à peu près noonu la doxalee ak Ndar. pour bu muy duma bu muy xeex ak si euh, data yàlla. Mhm. Mbodj en 1855. waaw euh, ba muy xeex ak moom.

lan moo war a traite ah. négrière jaayum jaam mi ba noppi lan moo ko yóbbu biir gore lan moo tax Gorée war a Dakar ci totalité am nekkoon cible pour li nga xam te moom mooy les français. Mhm. waaw xam nga eh, jaay jaam gi. matuwaayu mhm. temps yooyu. Mhm. waaw tubaab bi euh, tubaab bi dafa dafa jubari te li ñuy wax ne àddina su këfee sa bakken ba bëgg àddina sax ay reena ci sa dënn dina la def loolu ne Euh, Cheikh Anta Diop wax na ko civilisation fii la juddoo. monothéisme fii la juddoo en Afrique. dafa papa lan tax kenn kenn kenn dëggalu ko kenn jàppalewu ko maanaam du ma ne kenn dëggalu ko mais pourquoi à l'échelle internationale ça n'a pas été reconnu plus que plus que ça parce que même côté Akhenaton bu ñu ko doon expliqué ne. am na moo yoo xam ne mooy temps wu olof njëkk yee boo xoolee seen tur. ba Nefertiti noir la woon c'était une femme noire mais même ci film yi c'est une c'est inadmissible que ñuy bàyyi loolu di continuer. am nga loolu moo tax soo ubbee nga ne c'est quoi le noir ñu ne la c'est les ténèbres. c'est l'obscurité mm-hmm. c'est le mal. Mm-hmm. soo deelee da ngay sol lu ñuul. Mm-hmm. ba ñun sax dañuy topp tubaab bi ci loolu. le blanc c'est la lumière c'est la clarté. loolu yëpp colonisation mentale la. Euh, Cheikh Anta wax na ko mu ne ki lay coloniser. avant mu lay coloniser physiquement. Mhm. da lay coloniser mentalement. Mhm. Mhm. psychologiquement c'est-à-dire moom daf lay weddi. mais moom rek mu weddi la amul solo. tant que yaa ngi gëm sa bopp ab garaaw. mais dafay dugg ci sa biir xel. di fa liggéey. ba yow nga weddi sa bopp. nga ñàkk confiance. instant boobu lay am victoire. parce que euh, dugg nañu Amérique tubaab bi. def génocide. dañu rey indiens yi ba ñu jeex. dañu jël ay matelas cultiver ay bactéries. ay microbe def ko ci ay mbàjj def ko ci ay yére ñëw ax yarute indil nañ leen cadeau ñu jël ah merci beaucoup vous êtes gentil cadeau empoisonné ñu dem épidémie bi déclenché wu ñoom ñëpp ñu dee ñu for suul sanc ah. noonu la ñu sancee Amérique mm-hmm. que Amérique américains yi ba tey dañu gëm seen bopp oui parce que ñoom bañ leen doon essayé jaay jaam ñu bëri dañ doon xaru ñu ne tournons-nous vers l'or noir mm-hmm. vers l'ébène noir les nègres mm-hmm. d'Afrique mais mu ñu tëb tëb rek ñëw commencé ñu jàpp di ñu jaay il fallait que du point de vue de la conscience des occidentaux ñu justifier ko ba gëm ko mm-hmm. alors ils ont essayé de démontrer les scientifiques français européens que le nègre n'est pas humain il nit ba pare ñu nangu ko en plus mm-hmm. il fallait que ñu ravaler ko mm-hmm. au niveau de l'animal mm-hmm. pour mën ko traiter comme un animal et c'est les philosophes les scientifiques les prêtres ñoom ñëw valider loolu. ñu signé lépp mu leer ñu ne nit ku ñuul du nit. kon mën nañ ko jël jaay ko liggéeyloo ko comme ni ñu koy defee. nag bi ak fas bi ca àll ba. Mm. c'est ça la traite négrière. parce que euh, Pape dagguma la sax mais américain en fait ñoom loolu la ñuy jàngal seen doom yi. ci seen mm-hmm. école yi ñoom dañu leen di loo seen bopp. Mm-hmm. donc yaakaar naa ni tey li ñu fi wax yëpp ndag nday ndag am na solo parce que man da ci ëpp. jàng ko sama man a jàngu ma ko man sama histoire mhm. fàttaliku ma ko man sama école wax ni ko jàngi li muy wax ni jànguma ko mhm. donc su fekkoon ne professeur dañu doon suux bu baax a baax baax a baax mhm. suñu histoire yaakaar naa ne kon dinañ gën a xam suñu histoire bu baax donc ñu dellu si tuuti si Dakar histoire u Dakar dama bëggoon xam suñu maam El Hadj Malick Sy relation la amoon moom ak lébu yi waaw xam nga Ndakaaru dëkk raw euh, kilifa yi nekk ci réew mi yëpp ñi leen di fàttaliku tey di leen tiitaru mm. jaar nañ fi mm. mm-hmm. commencé ci Cheikh na Cheikh Saad mm-hmm. moom bi mu fi ñëwee ñu ngi ko dalal cëddeem parce que ne woon naa leen mooy penc ba ñu doon dalal kilifa diine mm-hmm. julliti sama maam Youssou Bamar Gueye moo ko dalal ñu séq teraanga mu liggéey fi bëgg kilibu yi ne leen sama deret ak seen deret bu yomal xiyaam moo tax nga gis si chérif yi ay lébu mhm. samay cousin lañu mhm. ñoo bokk pour tënk loolu mooy Cheikh na Cheikh Saad mhm. Serigne Touba bañ koy yóbbu géej ñaari guddi Dakar yi en 1895 grand Serigne Abdoulaye Matar fàttali na ko léegi dañ ko yóbbu directement Kandial Diop mais lébu yi dañ def délégation seeti gouverneur ne ko suuf si suufu teranga la mënuñu concevoir kilifa dugg fi ba génn fi te teraluñ ko dañoo li ngeen joteel kii suñu yoon newu ci jox leen ñu ko ñu teral ko ñu jox leen ko mu ñëw cëddeem fii ci marché Sandaga diggante Mbengeen ak Jaañeen pendant trois jours ñu teral ko. kon jot na am teraanga. ma foog ne ñetti guddi rek la wala ñaari guddi la. ñetti guddi la ñetti guddi Ndakaaru yi ñetti guddi Ndakaaru yi. kon bànneex jot na fee am. Euh, ay mbokkam jot nañ koo teral waaw waaw xam nga quand on parle on a peur bu ñuy waxtaanee Dakar. Mhm. Euh, lu metti rek ngay gis. tout à euh, fait naan soow ba kenn bëggul sax wax soow dégg naa. Mhm. kenn bëggul woon wax Dakar da naan soow. Mhm. kon c' est bien c' est bien am na lu ba lu baax loo ba muy dugg ci ci kaso ba. dafa fekk lëndëm. fekk fa tiis fekk fa naqar am na ñu naan ba mu tegee tànkam. rab ba ko jàpp dafa bëtt tànk bi. ba mu ne tiis yam fa am ak naqar yam fa am su si xelam demee day bëgg a jël jaasi xare ak tubaab bi wante rasulullah moo ko naan bul xare mais li li li li nooyal loola mhm. mooy teraanga bi ko waa Ndakaaru teral fii si ca démb mhm. ba ci téere ba bu saaka wax ko soo xalamee ñaari guddi Ndakaaru ya soo mhm. xam la waaj a wax et cetera ba mu jeex mu ne tubaab ba oo ko boole kook sàndarma bu ñu naan Ibra Binte Gueye bu mhm. boole kook soxnaam su ñu naan Ana Faye mhm. ngir war ma donc Ana Faye moo ko teral fii si Këddeen donc foofa xelam dal na fa am na fa bànneex donc sëñ Touba jaar na fa mhm. ak la fa xew yëpp loolu lu question bi même Alaaji Malick ñëw na bi mu ñëwee euh, jaraaf Ibra Gueye Pay ndeysaan yàlla na ko yàlla yërëm mu ne dafa fekk mag ñi dafa ak ñoom teraanga itam mag yi sopp ko ngir taar gi sopp ko ngir alxuraan bu neex bi sopp ko ngir yiw gi mu yiw ba mag yi finalement dañu amoon ñeewante ci moom bi mu demee ba mbir mi sori ñu ne ko ñun de da fekk ñu jébbalu ba pare ci Cheikh na Cheikh Saad Bou wante dinañu demander quelques-uns parmi nu ñu jël sa wér de maam Alaaji Baalik ne leen déedéet jox leen ma ay xale ndax comme que jël nañu wér de Cheikh na Cheikh Saad Bou nañ ci des ñu jox ko ay xale ñu ne bi mu ñëwee fii kër Paate Thiam ci Mohammed 5 fa la njëkk dal am na daara jafa nekk dañ la wax néeg ba ba mu fa jógee ni ko grand sëriñ Abdoulaye Matar waxee mu amee noonu ñu yóbbu ko xog pencum xog fa mu dëkkoon ci pencum xog mooy actuellement fu ministère de l'intérieur nekk Pape si Sy ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm nettali nañu ne sëñ Babacar nee ne foofu la njëkk a déggee baatu euh, Cheikh Ahmed Tidiane Chérif ah, ndax dafa bàyyi waajuram. génn dem bi ñëw dégg ko muy waxtaan. mu déglu dégg muy waxtaan ndax nit mu toog ci bunt bi. bi mu demee ba wax bi dal mu dugg si fekk papam toog moom kenn mu ne ko lu xew. mu ne ko cheikh bi laa doon waxtaan. Mhm. moo tax Pape Malick si demandé woon que su fekkee ne espace boobu xamuñu la fa ne. Mhm. leen ko jox ñu def ko de prière. Oh. foofu moo doon pencum xob. maam El Hadj soo demee yàq jëf jàkk ji yàq jëf gii moo tax ñoom ba tey bëgguñu ko daaneel moom moo rëdd fondement yi. laayeen yi déedéet yàq jëf fii ci penc yàq jëf waaw waaw El Hadj Malick ñu lim ñu kilifa yi nga xam ne jaar nañ fi soo demee ci euh, maam mu Laay jaaru fi daf fi dëkk daf fi dëkk waaw Kumba Ndooy mooy ma mooy mooy yaayam xam nga soo déggee Kumba fekki Ndooy xam nga ne kii bu piir la waa léegi Ndakaaru Ndooy la sant wala Jóob wala Ndiaye Ndakaaru Ndoye la sant wala Diop. waaw bu ñuy ñëw Ndakaaru Ndiaye. Ndoye Ndiaye lébu yi moom. loolu loolu bu ci tontu Diop mu ngi ci nga tontu léegi ba pare euh, ñu ngi jot ay message yu bari bari. Euh, pour que waxtaan bi gën a yaatu. Mm. waaye émission bi dañ ko tënk. émission bi dafa am dafa am nu mu war a doxalee moo tax xam naa ne dinañ amat beneen plateau spécial boo xam ne. Mm-hmm. Euh, incha allah ki nga xamante ne mooy monsieur Guèye dina ñëw mu gën a yaatu yaatu mais fu ñu toll nii moom papa xam naa ni ay cof rek lay am ngir ñu mën a continuer ndax bu ñu toppee benn sujet rek du mën a dem ñii seetaan dañoo passionné ñëpp a ngi bëgg quand même euh, euh. nga gën a expliquer mais je pense que voilà dinañ la amaat ci yeneen plateau parce que dafa am tamit euh, ñoo xam ne suñu ay invité lañu parce que dañuy waxtaanee Ndakaaru mais dañuy waxtaanee culture musicale voilà kon nag Jëla bu nekkee sama doom bi ñëw na Jëla mu daal di ñëw euh, taxaw léegi nii euh, pour may ñu quand même euh, benn benn benn son ñu daal di détendre c'est très important Jëla kon bu nekkee pare nga ñëw en place. ayca jege si. macha allah mais mais taxawal da ngay def deux wala dañuy enchaîner benn. waaw ayca. ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete mbëggeel ni mu neexee ku ko dundul du ko seede dafay féexal xol dalay wan yoon nga xam fi nga féete bu dee tribunal loo bëgg naa àtte ma tëj ma ci sa xol nangu naa bi ma wana tax ma dëddu sama àdduna fi ma teg sama loxo duma ko baax jogo ci toppatoo ma bokkul ñoom doo ko baax dameel bëgg naa la sama dameel bëgg naa la fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul woon doof laay doo dameel bëgg naa la sama dameel fasal nga ma samay bu mu xool amoore su ma la xamul bravo bravo euh, reste avec nous euh, reste avec nous kaay kaay kaay nii kaay nii ma jël la ci scène bi. Euh, Jëlla kontaan nañu tey vraiment comme d'habitude ah man su ma lay gis voilà parce que da nga màgg samay bët. jamonoy seen petit gàllé Papa Guèye moom nag mooy Jëlla c'est une jeune sénégalaise mais lu tax ñu koy invité saa su ne mooy gis nga ko elle reflète l'Afrique de par sa noirceur. Mhm. de par son caractère. elle reflète le Sénégal de par son habillement je pense que jar na ñu koy bàyyi xel parce que quand même dafa am benn présence euh, benn prestance euh, scénique bu incroyable ma bàyyi la nga nuyu sa papa waa maa ngi koy nuyu bu baax a baax. Mm-hmm. di nuyu tamit sama papa yi ci ginnaaw. Mm-hmm. di nuyu waa Sénégal ak sama mag yëpp ma fi fekk. Mm-hmm. di la nuyu yow tamit bu baax a baax di nuyu képp koo xam ne rek yaa ñuy seetaan. tey ñuy waxtaanee euh, Ndakaaru. parce que xam nga ni xam sa gox dafa baax. te yow wéykat xale nga waaye nag macha allah euh, ñaan nañ yàlla quand même nga nga nga am ay ay ay voilà nga am gudd fan bu baax a baax kon lii est-ce que da tey plateau bi. waaw mu ngi may inspiré lu bare bari man. ñu may invité ci plateau yu mel nii daf may neex yoo xam ne dama fi fekk samay mag ak samay papa ñu may gën a dolli ay inspiration yoo xam ne yu ma xamul woon et yëpp di ma ko xamal donc man may ñëw si plateau genre yi daf may neex. est que am na looy waajal tey cassette bu bees euh, wala wala ay clip. si si Dieyla mu ngiy waaj. d'ailleurs sax maa ngi waaj benn clip bu boo xam ne ñu ngi bientôt léegi léegi incha allah léegi mu pare suñ paree si loolu ñu ngi waaj album tamit. macha allah ak ay featuring. léegi tey dama la indil benn xalam. d'accord lii nag c'est pas dañ koy improviser. jëlal xalam bi. jëlaa nga leen daanaan nga. Mhm. daanaan nga yaa ko wax. <laughs> léegi da ngay déglu. Thierno xalamal la. Mhm. nga xool sénégalais yi xool xale yi xool mag ñi xool ndaw ñi xool góor ak jigéen nga daal di leen may nga wan leen yow yaay kan tey merci ma belle. à mon retour Joor Ngoone Latiir jàmbaar ja ñaawuloo sëf sëteen nga batalaata ñaawuloo waay ni lab joor ngoone laatiir jàmbaar ja ñaawuloo dem xaritaan tàng mar faatu jàmbaar wuy Lat Joor Joob kuli joor ndoog fal faatim ngay calaw ma samba yaasin koddu sangoone barket ak joogo maar Lat Joor ñaawloo bis moo tiis bile bis moo ñaaw bisum keroog deret jaag pën ba nday saxaar saak sa eu woyla may ma woyla woyla woyla woyla woyla yeela man de woy naa la bakk naa la jeñ naa la mu ma ndey ndaa man ak yow may xale la yaa ma tete man de woy naa la dundal dundal ci matu nogotu ko du yomb ndax danga rugor bay daw ci yow man de woy naa la woy naa la woy naa la woy naa la yee yee ani waa Foussé nous waa 2STV Bella woy naa la Kati woy naa la yee ñetti doomu penn naa ko yelloo ni waay ni lab joor gone laatir jàmbaar ja mënul ñaar Merci beaucoup Dieyla ah, merci beaucoup Dieyla merci beaucoup bonne continuation Dieyla. voilà kon nag euh, gis nga ko euh, tonton euh, tonton Gaye émission bi am na solo waxtaan bi am na solo mais comme ni liñ ko waxee rek nii la tëddee parce que xam nga ni vous et nous lu mu neex neex wala waxtaan lu mu kawe kawe. Mm-hmm. charte bi mooy nag tuuti tuuti tuuti xalam dugg. Mm-hmm. tuuti musique dugg parce que tamit mm-hmm. day nekk plateau boo xam ne. artiste yu mel ni Dieyla gis nga ko ñëw na way. waaye bu ñu ko nee improviser ñëw na dugg ci laaj yoon. la ban jàngat nga ci am. mais en tout cas moi je je la félicite je l'encourage elle la voix. Mmh. la a elle a l'amour le désir. Mhm. et c'est le désir qui est fondamental. tout à fait bon j'aime bien la tenue on sent la correction. Mhm. malgré. naawul daal. naawul waaw waaw <laughs> xale bi réglé na na tey am na fit ñeme na li muy def donc ñu ñaanal ko yàlla uh-huh. ñu may ko gudd fan amiin may ko wër parce que pour faire la vie il faut un tout mm-hmm. dañuy dund donc lii ci dund gi la bokk macha allah am na solo léegi am bu nekkee euh, élément élément Dakar li bu origine euh, pare nag ak Adji Wade nekk historien bu mag a mag parce que quand même foog waxtaan bi daal di continuer ñii seetaan nag vraiment kontaan euh, ñu daal di seetaan tout si suite élément bi dellu si waat faram ko ci plateau bi askanu Lebu waxtaan wi mu waxtaanee ak yi yéen sama xel dafay dem ci monsieur Diop Serigne Ndakaaru la woon Aliou ko jaraafi Ndakaaru la woon Mboor Diagne ndey ji réewu Ndakaaru la woon El Hadj Ibrahima Diop Serigne Ndakaaru El Hadj Mbaye Sylla xaali la woon ak Hadj Mouhamed Lamine Diène imam ratib mais lébu gi naka la juddoo ak fan la juddoo lébu gaa ngi juddoo fii ñu tuddee presqu'île du cap nekk ci sow bi turu Cap ku ñuy wax Denis Diaz benn portugais la woon ci at mënoo wax 1444 Denis Diaz moomu bi mu ñëwee ba gis ak ni mu taaroo woon ci jamono boobu mu tuddee ko Cabo Verde lébu gi ñu ngi ko tuddee Ndakaaru Ndakaaru ñuy wax Dakar am na léegi juróomi xarnu juróomi xarnu mooy cinq siècle baatu ndakaaru e, ñu ngi ko jilee ci benn baat mu muy daqaar daqaar muy maanaam tamari ñi am ñu ne déedéet ku mel ne Alioune Diagne Mboor rahmatulahi alayhi di woon borom xam-xam moom dafa ne dëkk raw imam ratib Aliou Moussa Samb dañ ko laaj baatu lébu mu ne léebukaay ba bari na ay ay ay tekki yu xam ne moom la ñu tekki mais tekki bi ci gën a yéemi nag mu ngi jóge ci Cheikh Anta Diop moom ak docteur Kizerbo dañu wax ni ci Égypte bu njëkk ba Égypte ancienne dafa amoon ñu tuddee libu libu googu ñoo nekkoon ci ci euh, géej gu ñooy wax si Cinérek loolu nekk ca li ñu tuddee Nil Nil mooy géej gu mag gi ñu ne foofu la lébu gi jógi baatu yoof mag ñi nee nañu mooy yeew ko fii ñu sant meng wala menga ñooñu nag seen tuur moo tudd maam njari loolu mooy waa yoof Ngor mu ngi mu ngi ñu ngi ko tuddee le sens de la dignité ca laaw déccu sàmb wala sàmba ka xam ne nag moom mooy seen seen tuur ñu ngi ko tuddee maam góor gi baas mooy tuuru ngor wakamb ngeen ko déggee mooy wakamb gi parce que c'était un lieu enclavé ko sampoon mooy ñu sant gi donc ñetti dëkk yi yoof ngor wakam ñoom lañ tuddee tànku libu gi deuxième groupe bi dem fan defu ñox beeñ beeñ mooy sable fin mooy suuf su nooy moo doon yarax ñetteelu groupe bi topp dem samp dëkk bu ñox wax sëmb jun tubaab bi moo indi sumb te sumb jun am na secret ndax danga fay taxaw gis fu ñuy wax itle île it Madeleines île des Madeleines moomu nee na rab yi xam ne mooy sàmm ndakaaru rab woo fa la nekk rab woo mu nga tudd wéer walla ñu ne dëgg daawur kon ki xam ne mooy génie protecteur bi di génie protecteur u ndakaaru moom mooy dëgg daawul ñuy wax ne dëgg daawul mbay ñaari groupe yooyu ñi xam ne ñoo ñoo nekkoon beeñ ak su mujjun ñoom ñoo jóg nag dem nag ci penku bi li ko dalee Anse Bernard jàpp mat leen loolu la ñu tuddee tey plateau penc yooyu nag fukki penc la ak ñaar fukki penc yi ak ñaar juróom benn yaa ngi biir plateau juróom benn yaa ngi biir Médina cëddim ca la bokk mbot ca bokk yàq jëf ca bokk kaay findiw ca la bokk guy guy salaan bokk xog ca bokk am na juróom benn yu nekk biir Médina juróom benn yooyu mooy sanca tey mooy siège lébu am na cëriñ moo am jumaa ji xam ne bokk na ci jumaa yi gën a mag muy jumaa cëriñ am na mbàkk na am na jekko am na ngaraaf am na kaay yu Ousmane Dieng mu nekk fukki pénc ak ñaar mais diggante 1817 bi tubaab bi sampo ci Gorée ba 1857 tubaab bi daf doon naxante ak lébu gi traité bi njëkk a bindante ñu ngi ko bind le 10 octobre 1826 ndax gaalu tubaab bi dañ daan dal ci xeer ndax géej gi te lébu gi amoon nañu ay pexe ñu signé traité pour bu ñu amee accident maritime ñu mun a am ndimbalu Lebu gi un mu ngi am le 10 août 1832 bi tubaab bi ñaanee Lebu gi ñu may leen fii ñu tuddee Bel tey muy les cimetières de Bel bëgg nañu nag léegi jógee Gorée implanté wu Ndakaaru mais ban pexe la ñuy ñu xaar ba su Korité bésu korité boobu ñu xaar mu ngi tombeeg le 25 mai 1857 lébu gi yëpp ñu ñu ngi feete bësu korité ci la tubaab bi def ay pexe bàyyi bañu ñu def korité indi na leen ay drapeau defal na leen ndekk ne bés boobu lañ fas yéene nag ñoo nag samp ci Ndakaar 1900 dafa am benn feebar bu duggoon ci réew mi muy fièvre jaune di pays tubaab bi nag def ko yoon wax ne pays gi dafay wàllaate nañ ñu maanaam penc yi ma la waxoon nañ leen tas ci la ñu xalaatee ci la ñu demee ba jël plateau plateau moo tudd Béñul def ko seen moom wax ne ñoom ñoo ko moom lébu gi bañ ne jaay ñu leen ko dañu leen ko abal 1914 beneen nattu ñëw natt boobu moo tudd la peste tubaab bi ne waaw kay lii laa doon xaar li des ci euh, village traditionnel yi maanaam penc yi dañ leen di dañ leen di faagaagal toxal leen ci benn quartier buñ tuddee Tilleen Tilleen c'est l'actuel Médina amoon na œuvre bu rëy boo xam ne maam Cheikh Hadji Malick parce que ñoom a ah, utaloon nañ ko tur il il y a le décret du ministère des colonies de l'époque bu wax ni en délocalisant les indigènes yóbbu leen dans cet espace vierge nañ ko tuddee euh, Pontiville maam Cheikh Hadji Malick radiyallahu anhu moom moo waxtaan ak magu Lebu yi ñu nangul ko ñu tuddee ko Médinatul Munawwar